internet yu Feeling Dakar TV daleen ak jàmm xibaar yu bàyyeekoo ci ñi nga xam na ñoom ñoo di Amady Badiane ak Ameth Thiou jàkkaarloo nañu ak juge bi niki tey jii ci tribunal des flagrants délits ñoom ñaar nag ñu leen di fàttali ñu ngi leen di toppee attentat à la pudeur ginnaaw bi nga xamee ne mouvement ONG Jamra daal na ñuy déposer ab plainte ci kanamu procureur de la République ngir seen jëf dañu jëfoon ci esplanade bu Grand Théâtre fecc ba daal di euh, def buus a buus loolee ñu joxoon ab plainte kii di procureur de la république ñu woolu ñaari fecckat yi le ci brigade des mœurs bi nekkee ci euh, police centrale bu Dakar ginnaaw ba ñu leen fa téye en garde à vue ñu fanaan foofu le ci lañ leen daal di defeere ñu leen defeere nag euh, ci boobu ba léegi tey ji ci talaata ji la ñuy jàkkaarloog la ñu soog a jàkkaarloog ki nga xam ne moom moo di juge bi foofee ci tribunal de flagrants délits ñu mën a jàpp ci jàkkaarloo boobee ak la xew euh, réquisitoire bi nga ñoom ñaar ñilee mën na dem ba àgg ci ñaari atu kaso ba juróom benn weer ci ay kaso ci euh, tëdd goo xam ne mën nañ koo tëdd ci euh, kaso bi lee ñoom ñaari fecckatu Wally Ballago Seck yi yiile loolu mooy euh, di nara dal ci seen kaw ñi nga xam ne ñoo di waa mu ONG Jamra nag moom seen taxawaay ci yëf yi mooy taxawaayu partie civile ñuy fàttali ne seen njiit di Wally Ballago Seck moom nag jotoon nañ ko déglu ci procès verbal ba ñu ko dégloo ba noppi lu yàgg foofee ci lañ ko daal di uh, bàyyi moom Wally Ballago Seck mu daal di doxi ji ay yitteem waaye ñaar ñii di Amady Badiane ak Ameth Thiou dañ leen fa mujjee téyendi seenub délibération nag ñu mën ko xaarandi juróom benn fan ci weeru juillet gi ñu jëm uh, ñu mën a xam ana fan la ñuy féete ndaxam dañuy jëfe uh, réquisition bi nga xam ne moom la procureur di sàkku mooy fu ñaari atu kaso wala juróom benn at yoo xam ne dinañ ko tëdd kaso muy Amady Badiane ak Ameth Thiou ak lu ci mën a